xibaar yi ñoo ngi ci ànd ak sëriñ seex njaay njare sëriñ seex njaay njare nag sëriñu lasraar bu yàlla baaxal la sët la ci sëriñ daaru asan njaay nekkoon góoru yàlla bu baax lool te olof nee na li ci maam sëta koy jël sëriñ seex njaay njare nag gëj ngeen ko dégg waaye kat ci soxlay askan wi képp la nekk indil na leen ay mbir yu bees tàq balaa ñoo ñëw ci mbir moome sax ñu gën leen a xamle waat ak sëriñ seex njaay njare moom day yëngu ci wàllu lasraar yàlla may na ko lool ci ñaan ak nopp waaye listixaarit yàlla may na ko ci lool ndax nit kat balaa ngeen a mën a liggéey faaw nga xam ay mbiram pour nga xam mbiru nit ki nag faaw nga defal ko listixaar listixaar yàlla may na ko ci lool tawat yi nga xam ne ñoo sonnal askan wi tamit am na ci xam-xam bu ci mel ni ndoxum siti hémorroïde ak néew kattan ci sunu mbokku góor ñi yàlla may na ko ci lool néew kattan googee sax dinaa ci taxaw ndax bari na góor yu mu sonal lool ci seen biir néegu sëy kon nag jokko leen ak moom sëriñ bi nag lu bees li mu indi moo di ndomb bu bees tàq ndomb boobe mi ko tuddee alhamdulilah alhamdulilah nag mooy dolli sant yàlla kon ko am ndomb boobe dinga dolli sant yàlla waaye yemu ca am na téere bu mu tuddee laf téere boobeekat ku ko am dinga nga mucc cat du la sonal waaye yemu ci moom yàlla may na ko lool ci wàllu kayit maanaam nga nekk ci bureau di liggéey am fa ay jafe-jafe wala sunu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew am jafe-jafe ci wàllu kayit ku jokkoo ak moom mën ngaa am saafara ca mbir moomee numéro bii la ñu ko mën a jotee 78 475 27 82 ma bamtu ko 78 475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 club bu ñu naan Giuseppe dañu ko bëgg lool li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Southampton mi nga xam ne monté nañu dem ca Premier League ba yóbbu ko ca Super League bu Turquie ba mu doxal moom mi di seku Mara nag li muy def mën na ko ab attaquant la vingt-deux ans képp la am xibaar boobu Goss Goss TV nekk ci réewu Turquie moo ko xamle ñu jugee ci Sékou Mara jël doomu France bi tudd Mike Maignan moom nag dafa amoon blessure bu ndaw ca baaraan ba loolee nag ki ca joxe xabaar du kenn ku ci tàggat équipe nationale bu France tudd Didier Deschamps tey jii dafa jàkkaarloo ak waa TF1 le ne doomu France bi blessure bi mu am taxu garaaw wér na te mi ngi entraîné normal kon nag dina ànd ak réewam di France dem ca Europe kon nag xelu France nañu dal ci mbiru Mike Maignan loolee la xamle moom Didier Deschamps tey jii la ko xamle dénk ko waa TF1 ñu jugee ci Mike Maignan ak équipe nationale bu France ak seenub xabaar bu neex dem ca waa Liverpool ñoom nag dañoo bëgg lool doomu Brésil bi tudd Douglas Luiz nekk ca Aston Villa di doxal bu ñu sukkandikoo ci Calcio Mercato waa Liverpool bëgg-bëgg bi ñu am moo di xaatimal ko contrat waaye gone gi nag waa Juve tamit dañu ko bëgg jamono ji nag contrat bi ko bàyyi ca Aston Villa clause ba ca nekk mi ngi toll ci soixante millions de livres sterling kon nag club bu ko ci njëkk a def mën nga koo am yóbbu ko ci sëb club mu doxal muy Douglas Luiz nekk gone gu mën la muy def xibaar boobu calcio mercato moo ko le ñu jugee ci Douglas Luiz waaye Liverpool gi ko bëgg du ñu leen bàyyee gum ñoom nag dañoo bëgg lool doomu Portugal bi tudd Antonio Silva di football ca Benfica bu Lisbonne gone gi milieu de terrain bu mën la muy def la. Abola nee na waa Liverpool woo nañu Benfica di laajte mbiru gone gi bëgg-bëgg bi ñu am moo de xaatimal ko contrat bi ko bàyyi ca Benfica mi ngi toll ci cent millions d'euros kon nag su fekkee waxtaan amul su ko waa Liverpool bëggee li ñuy def moo di fay kulóosam yóbbu ko ci seenu défense mu jàppale leen gone gi nag li muy def mën ko lool football am na lool yaakaar ci moom moom Antonio Silva ñu jugee ci Antonio Silva ak bëgg-bëgg boobee waa Liverpool am ci moom jël doomu France bi tudd Jonathan Klaus moom nag ma nga ca Olympique bu Marseille waaye mën naa am mu jugee ca club boobee ndax waa Marseille dàqu ñu jaay ko moom it dàqul jugee ca club boobee kon nag teqalikoo mën naa am ci diggante Klaus ak Olympique bu Marseille waaye club yu bëri ñoo ngi koy bàyyi xel bu dee waa Napoli ñoo ngi koy bàyyi xel li ñu bëgg moo di jëlee ko ci Ligue 1 bu France yóbbu ko ci Série A mu doxal concurrence googee tamit club yu bëri ñoo ngi koy bàyyi xel bu ñu sukkandikoo ci télé football ñu jugee ci Klaus ak bëgg-bëgg boobe waa olympique bu marseille am ci moom jël doomu portugal bi di José Mourinho moom nag am na club club bi muy tàggat ma nga ci réewu turki tudd Fenerbahçe doomu portugal bi xaatim na fa contrat wu ñaari at club boobee nekk ca Turquie officialisé nañu ko kon saison bii di ñëw Mourinho mooy tàggat Fenerbahçe ñu jugee ci José Mourinho ak contrat bu bees jël doomu France bii di Kylian Mbappé moom nag xaatim na contrat ca Real de Madrid document yépp signé nañu ko loole nag du samay kaddu kaddu Fabrizio Romano la lépp yemb na Kylian Mbappé xaatim na contrat yépp ci Real de Madrid file ak suba ci altine ji wala ginnaaw suba di talaata muy mardi mën naa am ñu officialiser ko maanaam waa Real de Madrid def communiqué bind bataaxal xamal àdduna jépp ne Kylian Mbappé na contrat ci sunub club Fabrizio Romano nee na Kylian Mbappé weeru février bële ñu génn ci la jëloon ndogal xam leen ni moom day footballi ci Real de Madrid waxtaan ci ak waa këram waxtaan ci ak waa Real de jamono ji nag signé nañu lépp li ci des moo di siiwal ko suba wala ginnaaw suba mën naa am waa Real de Madrid ko bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano. ñu jugee ci Kylian Mbappé waaye club bi ko ñëpp di séentu di Real de Madrid du ñu leen bàyyee gum ñoom démb ñu jël Ligue des champions bi ci kaw Borussia mun fekkoon na nag Atalanta Bergame jël Ligue Europa bi ci kaw Bayer Leverkusen kon ñoom ñaar ñooy jàkkaarloo ci final super coupe d'Europe bi final boobee sax xam nañu dat bi ñoo ngi ko war a jongantee ci réewu poloñ la 14 août la ñu koy jongantee kon Real de Madrid dina jàkkaarloo ak Atalanta Bergame mu soxal final super coupe d'Europe loolee xam nañu dat bi muy la 14 août di amee ci réewu poloñ ñu jugee ci final super coupe d'Europe bi dem ca MLS ba fekk fa waa Inter Miami bu Lionel Messi la Pulga démb dañu doon jàkkaarloo ak Saint-Louis City penalty match boobee nag 3-3 la jeexee bitu Inter Miami yi ñii ñoo ko dugal Messi dugal na Jordi Alba dugal na ba ci Suarez kon nag version Barcelone la ndax ñoom ñett ñooñee jaar nañu ca Barcelone waaye Lionel Messi nag saison bii ca MLS ba mi ngi fay doxal dëgg te mi ngi ci forme ndax li mu fa football ci ay match mi ngi toll ci douze fukki match ak ñaar dugal na douze bit fukki bit ak ñaar